nañ leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV comme niñ leen koy waxee saa su ne rek Dakar Buzz moom ci lu nekk rek lay dem ci lépp loo xam ne rek ñel na askan wi dañ ciy taxaw pour trouver solution ak ñoom tey nag ñu ngi fii Tëngéej ñu seet si benn soxna boo xamante ne doomam kat dafa réer mu ngi tudd Ibrahima Dieye toll ci fukki at bi mu demee ak léegi kat nee nañ léegi mu mat deux mois parce que depuis le 27 mai la la dem bi mu demee ba léegi jotuñu benn information concernant xale bi ñu seet si woon ko rek ngir waxtaan ak moom xam xale bi fan la dem ak naka la demee ñu nuyu ko bu baax di ko ziyaar. waaw ñoo ngi delloo nuyoo bi di leen ziyaar yéen ñëpp. tur bi naka la. Marème Marème Sakho. Marème Sakho Ibrahima sa doom la. waaw sama doom la. moom day jékki-jékki nag di kërees yooyu waaw bi muy dem noonu booba maa ngi ko taal añ ay midi yooyu mi ne ñëw na ma yaay damay fawi ji ma ne ko waa boo fawi jee si kanam nga ñëw bi mu génnee nag la fawi ji ma toog ba si kanam gisuma ko mu yónni mag ji na ko demal nga xooli ko fi mu doon fawee benn kër rek lay dem di fawi ji léegi mu dem xooli ko ni ne nekku fa léegi ma dem ma ne ko kon toogal xaar ma ma dem ma dem dem seetu ko ñu ne ma Ibrahima de tey jaaru fi ma ne leen jaaru fi te moom fi lay ñëw toujours ñu ne ma déedéet jaaru fi tey si laa tourné waatee ñëw ma ne xaar xaar ba si kanam tuuti xañ na mu ñëw ma ñëw nag toog ba si kanam gisu gisuma ko si laa delluwaatee xool koñ bi gisuma dara ba tey noonu ba tey sànq fu ne dem nan fa nag fu xamoon fu ne dem nan fa dem nan ba yoratun dara waa koñ bi ñu tamit wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant ñoom jàmbaaram jàppale nan ma boobu ba tey kenn toogut fu ñu xam fu ne dugg nañ fa dem nan daal moom fu mu suñu pexe moom jeex na waaw. bi bis bi Ibrahima di dem lan la mujjee wax ak yow day dem kër xaritam. waa day dem kër xaritam la ma tàggoo waa kër xarit boobu lay fréquenté souvent. waa fa lay dem toujours moom foofa rek la def fowukaay. laajte nga xarit bi ndax gisante nañ. laajte naa ko ñu ne ma tey moom ñëwu fa sax. ñu waa laaj naa ko. ñu ne ma jaaru fa sax suur bi mu waa araab lay jàng léegi nag moom dafa am feebar boo xam ne day këriis mm. dañuy dem hôpital sax hôpital mbaaw bi fa lay jëlee garab mm-hmm. moom lay naan bu xëyee ngoon gi noonu da koy naan bu ko naanu rek këriis bi da koy sonal bu koy naan moom day nekk carrément moom boo ko gisee dag naan dara jotu ko sax waaw moom sama doomu maa ngi ñaan ku ko yor ku nekk mm-hmm. bu dee yaa ngi ko yor muy Ibrahima Gueye nga dimbale ma si rek ndax sonn nan torop fu ñu xam fu ne dem nan fi papam dem na ba jeexal fu ne dem nan fa sonn naa jaaxle naa lekkatuma naanatuma xamuma fu may taxaw sax jàppale ma si rek ku ma ku ko xam ku ne wala nga dégg ko wala ku ko téye nga dimbale ma si rek te yàlla tax sonn nan torop mooy sa mooy sa taaw sama taaw bu góor say mbokk laajte nga ba xam rek gisuñu ko wala ci koo xamante ne da ko doon fréquenté te yow xamoo ko. waaw samay mbokk ñoom dem nañ seet ñoom daan duñ fa dem sax moom fi muy fowee rek benn xarit daal ay moroomam foofa la ñuy tase si benn kër fa lay dem di fowee léegi moom bi mu demee laajte naa ko de laajte naa ko foofa ñu ne ma Ibrahima tey jaaru fi ma dem sama kër mbokk yu ma xam lu ne dem naa fa waaye gisuñ dara. di c'est la première fois wala da daan faral di dem. waaw daana faral di dem waaye bu daa dem nii moom day du yàgg mu ñëwaat. waaw daa ah, léeg-léeg ay ñaari fan ñetti fan yooyu mu ñëw. boo boo ko laajee li taxoon mu dem. moom boo ne lu tax mu dem moom du xam lu ko kii sax lu ko yóbbu day jug pour fawi nii. ba mu dem waaw feebar la si moom këriis bi bu ko dikkalee rek moom du xamati waa man na génn pour dem fawi ji wala pour dem feneen. waaye bu këriis bi ñëwee rek bu jugee waat day afale du xamati fu mu nekk waa du xam fu mu jëm moom suñu waa koñ bi sax xam nañ li may daj si moom xale bi damay téye di def lu nekk pour bañ mu dem fowi ji téye ko si kër gi waaye moom bu foog mu génn soog a am jàmm bu génnu sax day xel di xeex xale yi day xeex xale yi moo tax damay naan ko di naxanteeg moom léeg mu ne ba suur bi muy dem damaa jël cent francs ni ko am téye ko nga toog mu ne ma waa waaye bi mu toogee ba si kanam la ne day demaat may naxanteeg moom damay naxanteeg moom naxanteeg moom ba sonn waaye buy génn di dem moom du ko tey sax buy génn foog mu génn buntu bi damay tëj def lu nekk waaye foog mu génn yàlla xam na ne mënuma dem fenn ndax moom fi ma toog laay toog ndax moom fu nu koñ bi bu nu amee xew sax du ma mën a génn ndax moom sama xel yëpp si moom laa ko kii def mënuma def dara mënuma def dara ndax moom bi loolu amee dem nga police def déclaration. waaw papam dem na police dem nañ police dem nañ si chef de quartier dem nañ bàjjenu gox fu ñu xam fu ne dem nañ fa. bon police waxuñu bu Rufisque dem nañ fa bu Rufisque lañ dem. de de waxuñu dara tamit. daaraatoon nan fa waaye dégguñ si dara. loolu amee tamit police rek nga dem wala dem nga ci yenn média yi def déclaration pour ñu waaw dem naa si yeneen média yi dem naa seen TV sama rakku jëkkër bi dem na fa. wax nañ ko si rajo yi tamit. waaye moo tax ñu doon toog quelque temps pour soog a ñëw si yéen. waaye bi jaaxlee gis seen émission yi moom wax dëgg yàlla yéen it jàmbaar ngeen kenn amul seen fay si la sañu xel demee ne xaaral ñu ñëw si yéen tamit. du leen xañ na ñoom yéen moom dañuy gis ku fi ñëwee rek boo fi jugee sa aajo day faj waa waa waa yéen kàddu rek ngay daanale koo xamante ne gis na sa doom rek wala mu luy ko ak yéen ñaar yéen affinité ngeen amoon maa xale bi maa xale bi ah xale bi man sori na si man ndax sama taaw bu góor la mënuma koo wax saa bu ma koy wax sama xol bi day fees daanaka moo nekkoon sama wéttalekat moom day waxtaan nii dangay reetaa mu nekk di wax ak yow di kaf ak yow yuy ba ba muy dem nuun sax mi ngi waxtaan ak man moo gën a mën a waxtaan sax si magam mi wala rakkam mi moom bu ko dara jotul moom day wax normal day wax normal bu ko kii bi dikkalee daal mooy problème ma doon ñaan rek ku gis sama doom wala yow nga téye ko boo ma seetaanee wala nga déglu wax ji nga wa nga indi sama doom si nu mu gën a gaawee maa koy ñaan nag ku ko mën a gis rek wala nga dégg ko rek nga jàppale ma si te yàlla tax ndax sonn nan torop torop sonn nan samay dëkkandoo sonn nan ñoom it fu ne dem nan fa samay mbokk fu ne dem nan fa dañoo dem a dem ba xamatuñ fu ñuy taxaw sax man bu ma tëddee lekkatuma naanatuma xamatuma lu may def léeg-léeg damay taaj sama añ ba pare sax damay mujj jug di dem du ma mën a toogati ba sama borom kër mooy naa ma toogal di ma jéem a waaye mënatumaa toog fu mu nekk ndax sonn naa torop doom dafa sax si xol waaw surtout ma moom moom moom laa njëkk a gis si góor te moo nekkoon sama wéttale maa ngi ñaan daal ku ko mën a gis wala nga dégg ko wala nga téye ko nu mu gën a gaawee nga indil ma ko dimbale ma te yàlla tax jërëjëf. jërëjëf kàddu yi am na solo. yaay booy ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum salaam ñu ngi lay fay bu baax. di leen gërëm di leen sant waa Dakar Buzz. di leen ñaanal jàmm. si yéen tele bi yàlla na yokku. ndax tele bu am njariñ la si dëkk bi parce que coono yi nit ñi nekk nii yéen leen ci génne parce que toujours dañ leen di suivre si ci tokk yi yëpp parce que tam nit ki bu fekkee dafa nekk si dëkk di def lu baax da nga koy encourager pour mu gën a yokk dooleem mais suñu doom ji suñu set bi dañu ñaan yàlla tànk yi lañuy yëkkati ba ngeen ñëw tànk yooyu yàlla ne doom feeñu kaayam ndax yaayam ji sonn na lool fa sonn yam dëkkandoo yi nag moom kenn mënu leen a fay amul lu ñu nit fréwul man mi dem naa si média dem naa fépp ndax may bàjjen gox bi man la fi yàlla teg dëkk bu la fa yàlla teg itam du doon am-am mais yëkk-yëkk lay doon ak amour ci li nga nekk te kii nii sonn na muy mareem ndax am sa doom mu réer depuis le 27 mais ba tey jii ku mu doon yow war nga xam ne sonn nga mais nag kuy wax te ngay waxal yàlla te ngay xool dëkk suñu dëkk bi quartier bi ñu dëkk nii amul ku fi toog mbaa fi tëdd mbaa ku nelaw mbaa ku lekk rek ndax Ibrahima ñëpp ku ne foo xam dem nga fa foo dégg sëriñ boo xam ne yaa ngi fa war a def sa sa alal di nga dem def sa alal te doo ñëw jàkkaarloo yaayam parce que dëkkandoo loolu rek lañ koy doyee macha allah yàlla na si yàlla def seen ñëw bi yàlla nay leeraayam. c'est la moom du première fois mu réer parce que dafa am genre euh, épilepsie yooyu daf koy daaneel te xam nga feebar yooyu bu la daaneelee ak situation bu lay fekk mën na la bazar da nga daw fi ñu lay seet mën na am foofu doo fa nekk beneen côté fa ngay nekk te loolu la dogal suñu borom la mais fii xale yu fii réer dafay am parce que daarax maa moo nekk dëkk boo xam ne quartier périphérie la amul yoon amul dara nit ñi dañu samp rek dëkk dëkkin bi metti na metti na te eh, situation ni war a tooge toogewu ni dëkk bi amul kenn ku fi defal kenn dimbal amul kenn koo xam ne état reconnaître na la fii boo déggee bourse familiale yi ngay dégg si dëkk bi sax ñi koy yeeyoo kenn joxu leen ko ay rarement man bàjjen laa fii mais secteur bi ñii ko moom kenn joxu leen ko dañuy xool tànn benn ñi leen neex di leen ko jox mais ñi ko yeeyoo ñu ngi toog comme genre yi yeeyoo nañ ay bourse familiale parce que ñii amuñu moyen yow sa dëkkukaay logique yow sa jëkkër dooleem bariwul da ngay faratu daal ba ba toog xam nga ñooñu bu fekkee ndimbal am na ñooñoo moom ndimbal mais ñi genre yi la état war a soxla genre yi ku ko dimbali yàlla nga dimbali li nga nit ki boo koy defal da ngay defal kii xam ne boo ko defalee yàlla gërëm la mais yéen waa Dakar Dakar Buzz dañ leen tàllal suñu loxo ndax gis nañu suñuy bët li ngeen def ngénte yi ñi seen yaram neexul ngeen di leen ngénteel ay doom yëpp dañ koy suivre di leen topp man dama leen di topp dama leen topp tout le temps ngoon nag bu fekkee yàlla indi ne wootalee suñu dañ leen di waxtu mi liy xew si dëkk bi dëkk bi daal mu ngi nii Daaru Rahman ñu ngi nekk Euh, nord-ouest quartier Manam fay mais dans tout dara Darou la pareil amul dara ndox sax amu fi ndox jusqu'à présent bu ñeel dañuy am ñuy roos si teen doo gëm te jusqu'à présent dafa am ba léegi nii teen yaa ngi fonctionner dëkk bu bu sancu indépendance ba nëgëri si jusqu'à présent am na côté boo xam ne électrification amu fa wala loolu metti na metti na kon yooyu yëpp nag ah boo xësee ba war a wax sa doléance da ngay wax lii xew lépp da ngay wax lii xew mais ndimbal mi nag moom dañ leen di ñaan ndimbal si xale bi toog yeeyoo na ndimbal te mérito na ndimbal te ku ko dimbali mu jël parce que am na góor goo xam ne mënul tàllal loxoom te boo dee góor doo sa loxo naa ma da ngay noppi rek mbaa nga am ku xam ne yow mi war ngaa dimbali ñu dimbali la moom nag foofu la toll ñu di leen ñaan nag bu ngeen demee ba seen borom rajo bi ak yéen ñi te bu ngeen duggee xam geen situation bi que ne kii c'est abordable pour ñu mën ko jàppale ngeen def seen loxo suñu Ibrahima mii nag di suñu jëkkër ah yàlla na ko yàlla nit yàlla nag moo yor lumière am lumière bi yàlla tafu si kawam ba feex ñaari fan ba benn fan. ñu seetaan lii rek yàlla génn ko yàlla mën na ko mais photo est-ce que waroo woon affiché wu waaw parce que bu photo am wul euh, pour nga gis ko day xaw a am problème ngoon nag ñun tamit dañ leen di ñaan dañ leen di ñaan dëkkandoo yaa ngi nii taxaw mais Njaay yaa ngi nii Ndey Njaay ñii ñëpp ay dëkkandoo lañu Mariama Fay keroog dañu dugg ñoom ñii ay xale lañu dañu dugg si dëkk bi ket ba am xaas bu dul jeex mais xaas bi ni nga ko amee woon noonu la demee si sëriñ si lijjanti xaas dañuy dem léegi. am demee ci sëriñ da leen di wax ne il est mu ngi ci. il en vie toujours lañ lay wax il mu ngi si ay loxo loxo ko yor. duñ wax jigéen wala la wax jigéen la mbaa ñun la góor la da dañ ñaar rek euh, dina feeñ mais buy ñëw jigéen a koy indi loolu rek lañ lay wax. waaw mu ngi si loxo yu wér daal la ñuy wax mais ba tey dañ lay wax ne la mu ngi nekk en vie ba tey néewuñu lëndëm na néewuñu dara mais ñii di xale yi dëkkandoom yii lépp lu leen war lu ne rek def nañ ko fu sëriñ nekk rek si dëkk bi teg nañ fa tànk ñun dem nañ man eh, scientifique sax def def naa annonce mais dara amoo retour. fois euh, ah. mu si loxo. soriwul. dañ naan leen xale bi soriwul. waaw te kenn mënul xam fan la nekk mais loolu mooy suñu problème waaw xale bi soriwul xale bi soriwul mais nag ak crise bi bu ko attaqué fu ñu ko xamewulee dafay nekk problème waaw. parce que fii yaay ji ndaam garab yu yaayam ay garab yu mu koy jox ndax da ko jëlee raffinerie mbaaw fa lañ koy jële mais xam nga bu demee te yorul garab yooyu day métti ka yor doo comprendre bu affaire bi dalee day jéem a nëpp nëppal rek ba mu sedd mais doo xam mais nag yàlla xam na yàlla rek moo xam lépp ñu bàyyi ko yàlla yàlla mën na si def. Euh, dooleem yàlla na ci yàlla def dooleem yàlla may ñu leeraay gu ko leeral ndax xam naa nag am na ñu yaakaar si naa ah. te nag seen télé bi yal na yàlla yokk de yéen a ngi def lu baax si dëkk bi ñu dañ leen seetaan ba Kaolack si àll bi moo nga xam nga ñu ngi leen di suivre man dama leen suivre damay ñaar damay eh, dugg si collection bi internet bi mais dañ leen di xool normal nga loolu ngeen def nag da ngeen defee dafa ndaw ndawul de. lu rëy ngeen di def ngoon yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla yokk leen ba ngeen yëkk ci barke yonent bi su jëkk ji nag yàlla na ko yàlla indi balay yàgg bala ñuy tabaski yàlla na ko fi yàlla indi ci barke salaatu fatiha yàlla mën na ko yàlla na yàlla def waa kay amali ko comme niñ koy waxee woon sànq rek doo ñëw ci gox defe naa ne te gisoo seef de quartier mbaa nga gis imam fi ñu nekk nag Ibrahima Gueye fi nga xam ne fi la réeré du Rufisque imaamu quartier baa ngi nii ñu waxtaan ak moom rek papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. Baye Mor Awa Sakho ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla yal na yàlla seen liggéey ngeen fekk ko te taal ko ndax lii de ñëp kenn ku ci ne def na ci sa dabar yaayam day salaaw woo bi ñëwee sama kër ak léegi dama ko ñaanloo ma ne ko demal xale bi dana feeñ. mu ne ma ah papa ma ne ko dana feeñ mu yëkkati asilëf jox ma ma ne ko naa la ko jégal mun ma déedéet dana feeñ kon nag ñu ngi leen di sant leen di gërëm di leen ñaanal yàlla seen liggéey rafet na yàlla na ngeen seen liggéey bi barkeel yàlla ngeen ko yàgg a fekk te taal ko te am ngeen am ci ngërëmal yàlla jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. kon nag yow mu yow mu en tant que imaamu jàkka hmm, tey bu ñu ñëwee ci koñ bi hmm. gis nañ melakaanu koñ bi donte Ibrahima moo ñu fi indi moom mi réer hmm. est-ce que dafay faral ay xale di réer fii dootoo lee leen gis. Ah, man nag loolu man xam na aw ma ci xam-xam ñu mel ni daal ñoom ma ci gën a am xam-xam waaye Ibrahima mii nga xam ne tey sama sëdd ba mu ba muy réer am na fu ma jaar moom ci jàkk ji ñu déclaré ko fi am ku ne ma jàkk duñ ci déclaré nit ma ne ko loolu wax bu yàqu la ndax jàkk bu dugutoon ak nit duñ samp jàkk kon nag ba ñuy wax bàyyi ma tax ñuy wax walla leneen waaye doomu aadama lu jàkka foor foor foor doomu aadama ko gën a foor ndax bu duutoon ak doomu aadama duñ duñ wax jàkk moom daal ba muy ba li am wax naa ko ba ñépp xam ne wax naa ko léegi nag ñii nga xam ne tey ñooy ñooñ addina ñoo ma gën a xam ñoo euh, euh, affaire koñ bi bisimilah. jërëjëf kàddu am na solo. Hmm, yal na yàlla hmm. allah ñëw di ñu wone di taxaw di ñu jël ngeen xam ne ñun ñii am nañ lu ñu tiis. am nañ lu ñu ñor ngeen ñëw taxawaaw ci ci ñun ñun amuñu seen fay ñu ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla fay képp ku gis suñu doom ji nag tax ñun ñëpp ñuy ñaxtu gis ngeen ñu ñun waa koñ bi yëpp ñu bëgg suñu Ibrahima mii feeñ képp ku ko gis rek nga noo ci mun a gaawe rek ak noo ko mun a indee rek ñu bëgg nañ mu ñëw bëgg nañ suñu doom ji balaa ñu julli ci kattanu Seydina Mohamed suñu doom ji feeñ ci darajay xaar Fatima kontaan nañ yal yàlla fay te yàlla yàggal ànd bi seen taxawaay rafet na mm. macha